salaamaaleykum mbokk yi alors tey dañoo ñëw leen wan nan la ñuy installer nan la ñuy builder benn nœud bitcoin à partir de code source bitcoin bi su GitHub wanoon nañ leen déjà nan la ñuy installer Ubuntu il trois moyens ci benn vidéo précédente donc déjà dañuy commencer instant bi ñu ñuy njëkk def mooy dañuy mettre à jour donc euh, commande bi c'est simple ñuy def sudo sudo apt get update bu loolu weesoo dañuy upgrade maanaam dañuy jéem a am dernière version wu package bi nga xam ne moo nekk si à de la mën nañ wax ni machine bi pare na li ñuy def mooy dañuy dem bi donc github point ñuy def mooy dañuy dem si documentation bi ñu xool gaay lan lañu wax build Unix donc si la ñuy xool liste dépendance yi leen gis ni dépendance yooyu noonu dañoo solo ñoo lay permettre après nga mën a build bitcoin donc si sa PC après fii nii soo leen fa demee di ngeen mën a gis définition yëpp donc bii nii si njëkk bi ça parle de structure de données beneen bi ça parle de réseau outil euh, bi avant da nga am lépp lu jëm ci wallet yi mooy Barclay database après nga am Q2 moom moo ñuy permettre nga am interface graphique pour Bitcoin Core bi ak i stock léegi ñu luñ def mooy dañoo compiler dépendance yi nii yëpp ñu def liste après ñu dem suñu repo on avait créé Bitcoin SN donc si étape bii ni compile Bitcoin on Ubuntu dañoo def benn liste boo xam ni commande yëpp ñu ngi nii donc moom la ñuy def benn par benn. ayca ñu dem. partie de moment bi nag mën nañ wax ni installé nañ dépendance yi léegi ni ñuy def mooy dañuy def étape quatre étape euh, trois ak quatre donc déjà dañuy dem ñu cloner repo bitcoin bi donc su fekkee installé gu leen git ngeen dem installé ko ba pare da ngeen def commande git clone bés bu ñu ko defee ba pare ñu dem si étape quatre bi nga xam ne dañuy installé donc Berkeley database. nga xam ni moom la Bitcoin Core di utiliser pour mën a stocker information wu bloc donc la ñuy def. donc là clone nañ Bitcoin Core si suñu machine euh, installé nañ donc Berkeley database lu ñuy def mooy dañuy dem ñu checker donc dañuy dugg si dossier bi wala on a toutes les informations yi nga xam ne mën leen leen fekk si soo leen demee github.com donc on a bi on a le fichier des test on a dossier des tests pardon on a aussi fichier autogène.sh bi nga xam ne moom la ñu soxla pour build donc déjà moom la ñuy utiliser dans ce build. Thank you à partir de instant bi nii mën nañ considérer que build nañ Bitcoin Core ci suñu machine genre a vraiment Bitcoin Core si machine bi en tant que nœud bu mën a intégrer réseau bi léegi nag dafa am différentes étapes top première bi mooy teste donc euh, gis nañ ngeen ko gis ni juste ci kaw y a beaucoup de yoo xam ni gars bi bind nañ ko en Python et mën nañ ko dañ koy dañ koy lancer test yooyu noonu et eh, ñu xool est-ce que ça passe casse suñu jàllee test yooyu noonu am na yeneen test yoo xam ne tamit dañ leen di jàllaat et à partir de la ñu ñooy tànn est-ce que dañuy utiliser cli bi donc mooy donc ligne de commande bi wala dañuy utiliser interface graphique bi dans tous les cas daal soo ñu lancer lu ñu woowee Bitcoin di mooy Bitcoin Daemon bi après su fekkee ñu dañoo lancer interface graphique bi dañuy def lu ñu woowee initial blockchain download ñu lancer bitcoin di tamit dina télécharger bloc header yi après mu commencé di synchroniser mais loolu ñu ngi koy gis ci vidéo yi di topp ñu leen di gërëm di leen sant si li ngeen di déglu yeewu